fi indi non dafa nag li conséquence merci beaucoup d'accord non c'est bon c'est bon eh, léegi Cheikh politiciens yi dañuy lëndëmal non li dégg nga bàyyi président damay leeral non man damay nga Barthélémy Dias du ma nag xam nga sànq bi mu lay dagg maa ngi ko ko non dama la ko ñaan rek s'il te plaît quoi li des ci émission bari bàyyi ko rek mu wax après yow li nga wax sa xalaat man du ma yem ci wax loolu damay leeral li xew ci suuf li ñuy woowee les dessous des cartes man loolu laay wax. avec des preuves. Amadou mënoo in mënoo ma intimider ba du ma wax li xew. avec des man yii seen affaire passé fii ça marche pas. avec, avec des preuves man lu ma wax dama ko xam te dafa am fu ma ko teg. ah Barthélémy Dias mi bind naa sama livre ni mi ngi wax ak Macky Sall te boobu dara xewul. mu weddi ko moom Barthélémy. waaw mu weddi ko te Barthélémy Dias du kër Amadou Sall lay wax ak yàgg na wax ak Macky Sall depuis bu nekkee maire Dakar ba léegi mi ngi wax ak Macky Sall mi ngi koy gis ñi ngi wax. loolu mooy dëgg bi fii benn leader politique moo fi waxul Macky sàll directement wala indirectement muy Ousmane Sonko ñeneen ñëpp dañuy waxam ak moom. loolu mooy dëgg <laughs> li ci topp mooy. le 3 avril le président lancé appel au dialogue c'était bien avant Union européenne bi ngay wax. baax na loolu mooy dëgg. baax na dafa def discours à nation ni nañu ne toog ñu dialogue. donc du affaire du discours union européenne moo tax wax waa Macky Sall wax dialogue loolu c'est faux. c'est faux deuxièmement. totalement faux Idrissa bi muy woo Ousmane Sonko pour dem këram mi ngi toog ak Macky Sall Idrissa Seck l'après-midi la fa naroon dem Ousmane Sonko moo ko ni mu ñëw 5 heures du matin. am na ci preuve. daf du ma waxantu am sa preuve du ma waxantu papa ngeen defal ndànk naa dangu nga may dagg mais moom su waxee dara da nga naan ko preuve il peut pas quand même des choses graves sans preuve toujours Amadou Amadou xam nga bi mu ne Mame Mbaye Niang Macky Sall dafa teg rapport Prodac defal ci conseil des ministres di ko dal benn par benn dañ ko laaj moom moo génn de vidéo xam nga ni Mame Mbaye Niang rapport Prodac le président teg conseil des ministres naan ko malversation yi point par point tey léegi laaj ko ana preuve mais Amadou xam nga yaa ngi bëgg a saboté nag non si si si non si franchement baal ma continuer laaj non mais si ko mu wax damay continuer leeral li mu wax daf maa wóor nañ. ci lan na ko teg. bu ma àjjana wóore woon noonu ma dee. mag ci Ousmane Sonko moo ni waaj na ñëw 5 heures du matin. pour ñu mën a gisee en coulisses. te léegi amul preuve. deuxièmement batterie bi yamul ci wax Ousmane Sonko ndax d'accord nga ma dem demam déedéet Ousmane Sonko ñi ko encouragé pour mu dem wax ci dialogue bi ci la bokk. xam na na ko Ousmane Sonko layee la tey ci discours am nee na des fois batterie bi day ñëw xam na bu baax li mu doon dox mais da ko doon wax li mu bëgg a dégg. ak li mu bëgg Macky Sall dégg ko dégg nga li mu waxee sax. dégg naa la man dégg naa ma wax. daf ni xam na bu baax ni. mooy mi ngi doon composé Macky Sall xam na lépp. nee na day ñëw mais mu def semblant wax ko li mu bëgg a dégg mais moom kooku dof yooyu mooy lan. na na ni sax na xam na ni sax des fois waa ji mi ngi koy enregistré. mais quand même da koy wax li bëgg a dégg pour mu yóbbu ko. Mhm. non mais attends xam nga xam nga Ousmane Sonko tamit nekk bandi cerveau la mais nga doon mbuusawaat nit ñi. donc non seulement wax na ak moom d'accord na ci ñi ko encourager pour mu dem ci la bokk. te amoo benn preuve. <laughs> exception mais yow waaye daf ko avoué. nee na exception xam na ni Barthélemy Diaz mu ngi wax ak moom waxu ko wala waxu ko tey. non da nga ne non mais tuddul Barthélemy mais tuddul Barthélemy. non daf non ni am ñëpp xam nañ mais tudd ko. mais Ma Maaw Diouf. ñëpp xam nañu ah, na non non na. waaw daf ni am na ñu ñëw ci man waaw. Barthélémy lay waxal. ok voilà yow nañu waxante dëgg nee na xam naa li muy def. xam naa ni sax maa ngi wax ak moom mu may enregistré. waaye dama koy wax li bëgg a dégg. mais ak li ma bëgg Macky Sall dégg ko. yëg naa dégg naa bref. xam nga lan mooy réalité bi mooy Ousmane Sonko la mu wax ak Barthélémy moom la waxul ak waa Kaawam maintenant nag moom ci boppam mën nay wax ak Barthélémy loo xam ni position boppam la bu bokkal ak position passif. mais ma xam lan laa gëmul nga toog ni yaa ngi politique ba pare doo dialogue mën gëmuma loolu xam nga Mandela Mandela mooy politicien africain bi réussir di gën a rëy ci histoire Afrique dafa génn prison jël ay années di dialoguer avec le système d'apartheid système boobu mooy système di gën a bon ci àdduna bi mu amee ba léegi bi muy dialogue ak ñoom ñooñu rey nañu famiyam yàq dundam tëj ko ñaata at tëj ay mbokkam mu jale jalegoog ñoom ba am yoon ba jël nguur gi amul xolal Palestine Israël cinquante ans d'histoire dafa mos a am passerelle xam nga àdduna ñaara fi ne ñaara fi nekk booy jëflanteeg nit nga ëpp ko doole damm loxo mu def li nga bëgg wala ëppoo ko doole nga waxtaan ak moom ba ngeen juboo ci lenn loolu tax position bi xali bi bi bi bi Khalifa Sall wax doon position bu ñu mën a dégg parce que bu fekkee ne yow. bu fekkee nag Pastef ñoo ëpp doole Macky Sall mën nañ damm loxoom imposé ko lu ñu bëgg mën nañ bañ a dialogué bu fekkee loolu amul nag dama jàpp ni dañu war a dialogué parce que amul problème bu am ci at non xam France France Macron dafa ñëw def def def. léegi Cheikh mën naa la. non dama jox exemple ci sa expérience. est-ce que mën nañu dialogué ba procès yi nekk ci kanam Ousmane Sonko denc ci kanamam. condamnation yi est-ce que dialogue mën na ci dara. tey bu ñu demee ba war a changer. est-ce que mën nañu dialoguer ba autant de. dama lay ñuy wax détenu politique ñëpp ñu génn ci kaso bi. léegi baal ma tontu la bu ñu demee bay ba war a mën a changer article L29 ak L30 ba ñoo xam ne dañ leen a topp ay milliards ñu mën a nekk candidat kay xanaa war nañoo mën a changer article yooyu ba. non non li li ay code pénal la ak ay criminel ah, lii n'a rien à voir non non non yow. lii justice mais pas pas déglu ma nag yow ba aussi xam nga ba léegi déglu woo ma nag yow. ok mhm. bu ñu ba ci sur la base di dialogue ñu ñu condamné dañu jël ay milliards ñu mën a nekk candidat na nañoo mën a dialoguer ba kuñ condamné ci diffamation mën a nekk candidat nag parce que du ci ñoo xam ne leen di condamné ay cinq ans ay milliards d'amende. mais ñooñu tëdd nañu ah ba. waa defal ndànk ñu mën a dialoguer ba ñooñu mën a nekk candidat mais bu ñu mënee loolu koy xanaa ki ñu condamné pour diffamation non pas à la prison ferme mais à du kooku mën nañu mën a jalage ba mu nekk candidat ci ci ci logique boobu. ah <laughs> li ngay wax ni dooy na waar de c'est-à-dire justice bi jël décision ñu dialogué ba loolu ñu indi ci ay coppite. xam justice du pour vengeance justice c'est un instrument au service de l'harmonie sociale. leen lan lañ xamul justice du pour fayantoo xam nga justice pour lan la. pour defar wala. justice dafa bokk ci liy defar société. ok bu ñu demee bay war a defar société. dossier justice dañ koy traité noo xam ne dafay defar société. d'accord maanaam ci gàttal dama ni man mosuma gis un leader politique nulle part dans le monde bu réglé ay problème te jalagowul. d'accord amul non xaaral xaaral damay non damay yeggale li may wax ni maintenant lenn rek pour moo tax nga war a mën a bañ a dialoguer boo amee doole boo xam ne wóor na ni ki nga seqal mën nga ko imposer doole kooku mën ngaa bañ a jologe mais man dafa am lu ma comprendre Ousmane Sonko. en mars 2021 au lendemain des événements su ma doon caricature dama naan dafa daanal makk Sall ba toog ci kawam après mu adopté une position radicale dialogue waxul te ñu dem ba condamné ko condamnation boo xam ne bu définitive mën na yàq éligibilité maanaam Macky Sall wëlbati na ko ba toogaat ci kawam. toogaat ci kawam mais léegi. léegi waa Pastef ñoom du ñu analyser loolu tuuti. je veux bien quoi nga jàpp ni Ousmane Sonko peut être peut être yonent ñu ngi comme ni waxee. xam-xam mais ngi koy analyser d'ailleurs am na ñu ko gisee ñoom voilà cest à bi am nit ñi di ko gis. maanaam li nga bëgg a wax Ousmane daa waroon jël nguur gi dafa waroon ma bëgg a wax dafa clair dama ni. Ah. en mars 2021. waaw. Macky Sall tëddoon Ousmane Sonko toog ci kaw. waaw tey Ousmane Sonko tëdd. Macky Sall toog ci kaw léegi da nga bëggoon mars 2021 Ousmane Sonko négocié. te deful dara waa Pastef. non non non waa Pastef. est-ce que di ngeen toog ngeen analyser loolu. non yow d'accord maanaam non Pape. mais mais Cheikh da nga foofu ngay yem. waaw mais conclure ah, s'il te plaît quoi dañu dem war a dañu dañu war a dem aussi ci condamnation bi. te loolu beneen débat la lan laa ciy jëlee. xam nga loolu lan laa ciy jëlee. il faut bien lire l'art de la guerre gis nga àdduna moment bi ngay waxtaan mooy moment bi nga ëpp doole gis nga Macky Sall pour mu waxtaan dafa dem ba toll situation boo xam ne wóor na ko ni affaire yi jub si na ñi bëgg a waxtaanee ñëpp soxla nañ ko. mooy li mooy mooy li Ousmane Sonko wax mooy li Ousmane Sonko wax te waxtaan. non non non kii nag bi mu jekkoo. dafa nekk di radicaliser wu ba aujourd'hui tey. ñu daaral ko d'accord merci beaucoup alors d'accord léegi léegi léegi léegi Moussa Taye dafa am wax boo bo bu xalifa wax. xalifa daf nii ak lu mën a xew loolu nga dëggal moom na bokk en résumé loolu la.